Elhadji Ousseynou Ndiaye dal leen jàmm ci xibaar yéenekaay yi nga xam ne rek moom la ñu xëyandoo ñu daal di koy door ak Le Soleil yéenekaay gi duñu xamal ne lépp loo xam ne rek jëm na ci waxtu couvre-feu yi nga xam ne rek amal na nañ ko ci réewum Sénégal njiitu réew mi Macky kàddu yi nga xam ne yëkkati ko dafay xam ne amul genn coppeeku goo xam ne rek am na ci maanaam daal juróom-ñetti waxtu ci ngoon juróom-benn waxtu ci suba yéenekaay gi duñu xamal ne donte nag njiitu réew mi Macky ak woyefal goo xam ne des na ko ci amal ndax jamono ji li nga xam ne moo di couvre-feu koor gi nga xam ne rek fi la toll yéeni kaay gi duñu xamal ne ak lu mën de xew daal jamono ji njiitu réew mi Macky Sall amul benn dogal goo xam ne dellu na ci ginnaaw jamono jooju critique yéeni kaay duñu xamal ne leneen loo xam ne delluwut ginnaaw muy cas communautaire yi jamono ji nag li leen jaaxal bokk na ci cas communautaire yi nga xam ne rek mooy am ci réewum woon ak ñoom jamono ji quarantaine nañu leen loolu waaye jàngoroy covid gi ci réewum Sénégal mu ngay gën di law 24 heures yéene kaay di ñu xamal ne cas communautaire yi kay ngay gën di yokk waaye gi duñu xamal ne bu dee nag lu soxla wàllu masque yi moom professeur Seydi di xam ne ne yi kay am na ci yenn bërëb yoo xam ne manees na ko faa bañ a takk maanaam daal am na ci ñoo xam ne ak ëppal dañu ko ciy amal yéene gi di l'observateur di ñu ji réewum Sénégal lam ci am bari na lool waaye tamit ñi nga xam ne itam ñooy jot a dund ak jàngoro covid 19 ji itam bari na lool laas yéene kaay dina xamal jamono ji daal taxawaay bi mu ci wàllu xeex jàngoro covid war nañ koo gën baral fekk jamono jooje grand place yéene kaay dina jàngoro ji kay daa mel ni nag léegi dafa soppi aw yoon woo xam ne fa lay jaar këru docteur yi maanaam bërëb yi nga xam ne rek moom la ñuy fajee ak yenn ci entreprise yi nekkee ci réewum Sénégal yéene kaay gi duñu xamal ne xoolal ca yi am na ci benn kër docteur goo xam ne jàngoro ji nee na fa sarax waaye tamit am na ci yenn ay entreprise yoo xam ne jamono ji foofee itam am dugg na fa le quotidien yéenekaay diñu xamale dem ci confinement total ci jamono jooje yéenekaay gi diñu xamale ak lu man di daal jamono ji coow lii nga xam ne rek amoon na ci wàllu ko jàngoro jeeg lii nga xamale kaay kay ma ngay gën di yokk réewum Sénégal kay fi toll lu toll ci ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent am nañu ko ci ay cas daaneel ko l'observateur yi nga kay gi duñu xamale bëri na ay jafe-jafe yoo xam ne mën Interage Sine Ndiaye